ci mi di jotee ba toftal ay simili la sëriñ Muntaxa Mbakke ibnu sëriñ Basiiru Mbakke yegg si fii ci daara isbu tarqiya ñi nga xamante ni ñoo di taalibe yi nag ñoo ko tertu ci ay njàngum xasaayit comme nam ka daan defee nag at bu jot saa yu benn fan jotee ci weerum safar ci nonu le la serigne bi ñewé ci daara ji ngir rekk ku len serigne Atou Diagne nek responsable moral bu daara bi di dik ci ku bi ni mel. weeru màggal bu masaan dik bobu ban amagul ban amagul barab bu melni sax fu nu nekk xelam day dem ci nan ñu ñu dem ci mom tax ngir soñante bi ak fatte bis bi ak waajal. su nek nak serigne Atou Diagne fay profito ci ku bi ngir rek woo taalibe yi ñu gën a jublu ci liggéey yi ci lu weerum safar bile. boo toogee ba bis bi yegsi même boo amoon kattanam it jënd gi képp foo jaar defee ko dana lëtta bu deente ne wàllu jaamu yàlla nag jaamu yàlla gi moom dundal gi da cee bokk maanaam di yëkkati xasida ci ay barab ay nit dafa daje ñoo xam ni nga ko mën a mënewuñ ko noonu di jàng alxuraanul karim di def ay salatu ala nabi ci njeexantalu nemmeeku bi nag taalibe yi ne nañ tey la ñu gën a dogu ngir liggéey su ko defee rek ñu mën a amal magal bu mag bu Touba édition 2015 bile comme nu mu waree